aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki julliti mbokki taalibe yi mbokki murit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di jiital ci nuyu beeg ziar bi sëriñ Muntaxa di ko ñaanal suñu borom mu yàgg fi lool te ànd ak wér naka noonu sëriñ Cheikh Fall jëmb di ñaanal bu baax a baax a baax mboolem kilifa diine yi Sénégal waaye di ñaanal mbooleem kilifa aada yi di ziare bu baax a baax a baax képp koo xam ne nag yaa ngi yeewoo fii ci réew mi Touba Argentine ak li ko wër di ci jiital suñu maam Cheikh Fall mi ne ci réew mi muy sëriñ Ngunda ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ziar waaye di nuyu it jëwriñu Serigne Touba ji muy Serigne Mor Talla ak sëriñ Bamba ak mbooleem ñi nga xam ne moom ñoo ànd ak jëwriñ liggéey bi di jaare bu baax a baax a baax. sëriñ Dame Cissé mi nga xam ne moom it waxtu wu ne mi ngi ànd ak ñun liggéey bi nga xam ne moo waral suñu toogaay bi te ñu fas yéene jottali kàdd yi ngir mbokki taalibe yi bàyyi ko xel mbokk yi xam ngeen ne waxtu wi heure buñ ci tolloon mu doon waxtu ndigal ci ñun woo xam ne ci xalifa xalifab maam Cheikh ma Fall làmp la bàyyeekoo muy Serigne Cheikh Fall jëmb di ndigalu xaru tabaski yi waxtu wu ne daayira bi nga xam ne mi ngi fii ci réew mi ñu koy wax daayira jësbul murit di daayira maam Cheikh Fall buñ ne jësbul murit nag mbooleem kuy Baay Faal ci réew mi moo xam Port Messier capital bi ak foo mën a nekk rek yaa ngi ci biir jësbul murit waxtu wii bu jotee njabootuk maam Cheikh Fall gi ne ci réew mi dañuy booloo boole seen ñaar ak seen ñett dajale ko muy addi xaru tabaski ñu yóbbul ko ki fi toogal maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp ñu xam ne mbokk yi tabaski yi ndigal la loo xam ne ci sëriñ Touba suñu yaakaar jala bàyyeekoo ba jëm si ci maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul diina ndigal loolu di dox la ko dale ci Cheikh Ibra ba ci Cheikh Moon Moussa Fall ba ci sëñ Mor ba ci sëñ ablaay Fall Ndar ba ci Cheikh Serif Assane Fall ba ci sëñ Abdou Sakkour Fall ba ci sëriñ Modou Aminta waaye ba ci sëriñ Cheikh Fall jëmb di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér mbokk yi ndigal loolu bàyyi ci sëñ ba léegi mooy dox ñu toll nag ci cappaandaw gi muy dajale àddiya xaru tabaski yi ñu di ci soññee fu waay mën a nekk ci réew mi te am yéene jël sa ñaq dugal ko ci liggéeyub Cheikh Fall bi ibbil nañ la bunt yi waxtu waa ngi waaj a jot àddiya jaa ngi waaj a dem mbokk yi wax nañ leen sànq ne leen ndigal lu xaru tabaski yi ci sëriñ Tuubaa la bàyyeekoo la tax mu bàyyeekoo ci sëriñ Tuubaa dafa am bés jàmbaaram ja muy maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridina woolu Baay Lamin Jóob Jaxeer ne ko dama bëggoon nga demal ma ci Sëñ Tuubaa ku tedd ki ne ko ndax am na ndigalul tabaski moom mam Cheikh Ibra mooy wax ak Sëñ ne ko ndax am na ndigalul tabaski nga xam ne mam Cheikh Ibra lépp lu mu daan def ndigalu Sëñ Tuubaa la ci daan xaar waaye ndigalu Sëñ Tuubaa it la ci daan déglu gannaaw ba loolu xewee góor gi Lamine Diop jaxeer dem wax ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ne ko boo demee nil Ibra Fall lu fa ne ci gàtt na ko dàq indil ma maam Seera Fall keroog gàtt fanaanul këram jur jëpp la dàq yóbbul sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ne ko bu demee nag ba waxtu ba zuuru tabaski bu demee ca jullekaay ba bu ñibbisee këram lu mu fa fekk na ko lewetal xam ne loolay am tabaskeem kon Baay Faal sañta tabaski te sëriñam tabaskiwul waaye nag ki nga xam ne moo fi toogal maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Mouridina di yóbbu ay tabaski ki fi toogal Serigne Touba muy Serigne Mountakha mbàkke ah mbokk yi liggéey bi day liggéey la boo xam ne ci Sëñ Touba la bàyyeekoo ñu am ci ndigal fii ci réew mi kenn ku nekk daana gis image yi kenn ku nekkit daana gis waxtu wi buñ ci tollee naka lañuy def ak mbokki taalibe yi kon mbokk yi liggéey baa ngi noonu ñu ngi ciy woo ñëpp fépp fu daayira nekk ci réew mi ñu ngi lay woo ci àddiyee xari tabaski yi nga xam ne moo jëm ci Serigne Cheikh Fall jëmb xalifam maam Cheikh Rahim Fall waaye it mu jëm ci Serigne Mountakha Mbacké mi fi nekkal Serigne Touba mbokk yi kenn deful kenn dara kenn defulul kenn dara lu waaye def boppam murit kàddu yi ñi ma yàgg seetaan miin nañ ko ci man damay faral di wax naan lépp lu ñu sumb cim réew di ko yóbbul sëriñ Touba wala ñu koy yóbbul lu bokk ci sëriñ Touba fexeel ba saw ñaq dem ci ndax kat ñaari sooroor yee nga xam ne Serigne Sidi Muxtaar Mbàkke moo ko tabax ca Touba waa murit sëñ Sidi wéy na waaye sooroor yaa nga taxaw képp ku ci sa dërëm demutoon sa dërëm dootu ci dem kon nag fépp fu ñuy wootee ci Serigne Touba wala ñu fay wootee ci maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp fexeel ba saw ñaq dem ci fexeel ba sa addiya dem ci ndax kat gaal ak bàmmeeleyam loo fa deful doo ko fa fekk Argentine nag dañoo am lu jafe ndax ñaanuk Serigne Saliou moo fi tàbbi dañ ko yóbbul keesu daayira mu ne fu ngeen bàyyeekoo ñu ne ko ñu ngi bàyyeekoo réew mu ñuy wax Argentine mu ne mba mot ngeen fa lim ñu ne ko déedéet mbàkke booba réew mi ñu fi nekk ñu néew la mu ne mbooloo ma bu ngeen demee ba mot fa lim yan na leen fa ndimbalal Serigne Touba fekk yan na leen fa ndimbalal Serigne Touba fekk na leen fa ndimbalal Serigne ba muy ñetti yoon te waxi sëriñ saali mooy waxi sëriñ Touba mooy dellu siwaat tuuti ci xari tabaski yi wala addiyee ju bàyyeekoo biir kër maam Cheikh Ibrahima Fall jëm biir kër Serigne Touba moom Serigne Saliou moomu day moom lañ ko daan yóbbul waaye àddiyam da ci daan dugg li may wax télé laa toog te àddina sépp danañ ko dégg sëriñ saaliw bu sëriñ Modou Aminta Fall daan waaj ngir di ko yóbbul àddiyam da daan yónni ndaw yëkkati àddiyaam ñëw jox ko sëñ Modou Aminta ngir mu dugg ci àddiye Cheikh Fall ji jëm biir kër sëñ Tuubaa loolu Serigne Saliou da ko daan def sëriñ taxa Basiiru mii nga xam ne it moo fi toog jataayu sëriñ Tuubaa heure bu sëriñ mu Aminta daan yóbbu addiyam ci sëriñ Saaliw da daan yëkkati addiyam boole ko ci addiyee Cheikh Rafal ji sëriñ Saaliw wax na ne sëñ Tuubaa day mën naa gàntal addiye ju ne ba mu des addiye ju bàyyeekoo biir kër Cheikh Ibra jëm si ci biir kër sëriñ Bamba sëñ Saaliw nee na addiye jooju sëñ Tuubaa du ko gàntal mukk addiye ju bàyyeekoo biir kër maam Cheikh Ibrahima Fall jëm biir kër Cheikhouna Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul Sëñ Tuubaa du ko gàntal mukk kon nag mbokk yi nañu waajal te xam ne liggéeyu poids réew mi yépp la bu ko ñaar defoon wala kenn nit def ko réew mi yépp la ko defal ma seetaan nag ma ñaataan rek addiye nag day lu doy waar sëriñ Saliou daana wax naan day fekk fu dara newul mu def fa dara fekk fu dara ne mu barkeel ko waaye fekk lu néewit mu baril ko lool moom àddiya du tuut nag duñ ko xeebit ndax Sëñ Tuubaa mosta àddiya indi nañ ci taarix dërëm junne ba ko maam Serafal joxoon ak dërëmub sëriñ ma si sa ndongo ba wane na ne sëñ jàngale na ne àddiya junne ak dërëm la yemale ndax da koo fekk ne ko mbàkke day dama bëggoon nga def ma ni sa takk ndeer bi foo jëm ñu àndaate ma lay yoral sa der bi sëñ Musaa Ka ne xaadim ne ko dellul toog te nag ma daaru marnaan te xam ne maa ngi fay ñëw bismi rahmaan nee na sëriñ ma siise nag gàncax daldi dem ba xàbbaan ca mooma at mu boole bëy ak yalwaan mu ne amut lu dul mennam dërëm ca at ma mu xam ne yàllaa ko dogal ca at ma nee na mu fab dërëm bi dal yóbbu gànnaar boobu sëñ Tuubaa ngi gànnaar mu fab dërëm bi daldi yóbbu gànnaar nee na jox ko sëriñ Tuubaa mu dellu koo waar mu ne lay loola mooy ba muy nuyoog Cheikh bàmba mu ne keroog Cheikh Ibra yoon ne na junne ca bés ba mu ne sëriñ Assane Thiam moo ko yóbbu gànnaar ca ndigalal Cheikh Ibra Fall may jàmbaar mu ne keroog la Bamba ne muriti kaay leen seere ne junne bii dërëm bi daal lay seere ne boroom dërëm bi yéen a na junne te lu ma waay yéen a mën Ahmadu ma fal ko junne kon junne ak dërëm la Sëñ Tuubaa yemale waaye ndigal lu ñëw nga dib murit na nga ci xar sa tànku tubéy kon liggéey baa ngi noonu mbokki Argentine xari tabaski yaa ngi noonu mbooleem fu fédération nekk mbooleem fu daayira nekk ci réew mi addiyee maam Cheikh Rafal jaa ngi dem woonan ci ñépp kenn ku nekk nag xam na ne dëkk bi doy na waar doy waar goo xam ne la nga daan am bu njëkk mënatoo ko am xaalis bi daanu na waaye nag ñun suñu digganteeg sëñ Tuubaa duñ ci xool lu daanoog lu yéeg lu ñu am rek jox ko sëriñ bi mu dem ne ci ñépp jàpp te xam ne ba muy metti ba metti yàpp sa xànc faal rekk la woon waykatu àdduna yi am na ku ko ci wax ne bi àll bi ne nàññ kenn ñemewu fi Ibra Faal yaa fa xuus jàll kenn gungewu la muy wax bu riis bu rëy ba muy metti ba metti moo bàyyeekoo ci wàllu kër ndeyam bàyyeekoo ci wàllu kër baayam te nekkoon góor nag mënoon toog liggéey jëriñ ay waajuram waaye booba xam na ne Serigne Touba mooy ramu jaam ñi ëllëg yomal xiyaamatu akbar mu bàyyi fa lépp waajuram mu jigéen di dund lu métti bàyyi fa lépp dëgmal xam ne sëñ Touba mooy ram mu jaam ñu ëllëg yoomal xiyaamatu akbar nee na bu wëroon sëriñ Touba ba gisu ko ëttub Sénégal day génn wëri ko ci naar yi nee na bu ko gisul ci naar yi maanaam day wër di laajte bañ na ko kooku day wàcc na waaye fii mooy xabroom nee na mu toog ca xabru ba di ko liggéeyal di ko jaamu di ko liggéeyal ba làq ngërëmam dal di taxawal yoon wi nga xam ne moom la diglante woon moom muy yoonu murit kon koo koy murit ay murit fu waay mën a nekk ak noo mën di mel ak noo mën di toll foo sukk jébbuloo ne ab murit nga loo baax baax baax baax loo kawe kawe kawe kawe taalibe maam Cheikh Ibra Fall nga sëñ benn taalibe rek la am muy Ibra ndax yoon wi li fi mayee dara ak li fi jariñe maam Cheikh moo ko wone te moo ko njëkk ba ñëpp jaar ci Cheikh Ibra moo ko wone ba ñëpp jaar ji ku am dara tey ci yoonu murit rek jëf maanaam jëfi maam Cheikh Rafal nga jëf ba tax nga am ca dara bu lëg lekkee aloom nag na ko gërëmee coy lëg fu mu lekkee alom na ko gërëmee coy luñ am ci yoon wi rek jëmmi maam Cheikh Rafal Jalla Serigne Saliou day xam na ko bu baax ndax foo ko mosu tudd ci kanamam mu sotti xéewal moom Serigne Saliou kilifa gu mag ci yoon wi ñu xam ko bu baax xam fa mu dëkk soxna say batal lañ koy wax doomi Serigne Ablaye yàqin jóob ponkal mu mag ma seexub maam Cheikh Fall ba te nekkoon nekk Cees muusante képp koy jóge njaareem wala foo mën di jóge jóge ndakaaru di jëm tuuba jaar Cees da romb rond boobu nga xam ne ponkalu maam Cheikh Fall ja seexub Cheikh Ibrahima Fall ba ka laq ngërëmu Cheikh Fall la muy sëriñ ab Ablaye yàqin jóob moo nekk Cees muusante te ñaari télé yi wër ko nii leeram ju tedd ja muy soxna say bata dafa ñëw nuyu sëriñ Saliou jo jox ko addiyaam teg moom ba pare ne ko mbàkke day dama bëggoon nga wax ma ka defar sama waajur wi nan la mel ci góor yàlla yi ak lan mooy Baay Faal déglu leen wax ji de wax ju riis la sëñ Saliou dal dina ciix ci wakkam ne ko mboolem góor yàlla yi amul ku tollu Baay Cheikh Ibra fii dal di sotti xéewal moom Serigne Saliou toog ab diir ne ko ñun de xamuñu bàyyi Cheikh Ibra waaye li ñu jot a xam ci moom dana la ko wax ne ko xam nga ni ambulance mel ci oto yee Serigne Saliou ku xamoon àdduna la waaye da koo dëddu woon da koo xamoon lool ba pare dëddu ko ne ko mu xam nga ambulance a ni mel ci oto yi mu ne tekk di ko déglu mu ne ko amul sens interdit te fu mu taalee làmpam yuuxu oto yépp xaj xajal ko mu romb jàll noonu la Charafaal mel ci góor yàlla yi ndax dégg ngeen wax ji ni ambulance mel ci oto yi la Charafaal mel ci góor yàlla yi amul sens interdit police du ko taxawal te fu mu yuuxoo oto yi xàll xajal ko mu romb jàll da ko liggéeyal suñu boroom nag ba yàlla faye ko loole ngeen foog Cherafal dafa xëy xëy rek ñëw biir kër sëñ Tuubaa déedéet defarub yàlla la suñ boroom programme am yàlla la ndax sëñ Moussa ko wax na ko yàlla mi ko moom moo ko ne Bàmba moo la moom demal nga raasi ko jox ko say pexe keroog la ko suñ borom tegtal yoon wa ab murit di aw baraw pexeb murit ba am ngërëm bëri murit te dootul ree di tax taxi kon tracé suñ borom la yàlla moo ko tracé na ko Ibrahima jógal nga dem wëri sëñ Tuubaa maam lu mu la waxloo maa la ko waxloo lu mu la defloo maa la ko defloo jël naa sa lépp jox ko sañ Bamba mu way deng nag moom Cheikh Rafal jël léppam jox sëñ Tuubaa kon mbokk yi ñu ngi tàggatoo yéen foofu di leen wax ne li waraloon toogaay bi rek mooy àddi xaru tabaski yi nga xam ne ñu ngi koy jële fii ci réew mi di ko yóbbul ki toogal maam Cheikh Ibrahima Fall muy Serigne Cheikh Fall jëmb waaye it Serigne Cheikh Fall jëmbit di ko yóbbul ki fi nekkal Serigne Touba muy Serigne Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi kon mbokk yi ñu ngi ciy woo ñëpp képp kuy dégg kàddu yi ak fépp fu waay mën a nekk ci réew mi ñu ngi lay woo ci àddee xaru tabaski yi di jaare waat bu baax a baax Serigne Ngunda Fall waaye di jaare it Serigne Khadim Fall suñu Serigne suñu mag suñu jëwrin ànd ak ñun liggéey bi di jaare waat bu baax a baax it Serigne Dame Cissé moom mi nga xam ne waxtu wu ne it mi ngi ànd ak ñun liggéey bi kon mbokki Touba Argentine liggéey baa ngi noonu seen ab liggéey a ngi noonu ah déclaration bi mi ngi noonu addi xaru tabaski yi mi ngi waaj a dem kenn ku nekk xam na ne tabaski ji jub jub si na li ci des bareetul kon képp ku ko dégg rek na ko bàyyi xel am nañ yéene nag ñépp tàbbal ci seen ñaq mbokki julliti mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.